daanaka doyloo woon neen kàddu ki daana léegi bàyyi ko teewoon euh, ndax kàddu yi matale na rafet na waaye nit ki bul na joxe cër foog nga nangu cër woowu ñëw neen fii ci ndigal xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass mi nga xam ne moo ñu fi yebal ñu ñëw fekkale si sëñ Abdul Ahad Gaynde Fatma mi nga xam ne moo ko yëgal bés bi bu yàggut la woon ñëwoon seetsi ko mu feddali kóllëre bu dëggu goo xam ne ne amoon na ci diggante baay ak kër gi nga xam ne fi lañ nekk muy xaadim rasul Cheikh Mouhamadou Bamba nga xam ne amul sikki sàkk ne ku liggéeyal boromam la xaadimu rasul li nga koy woye te xaadimu rasul nekk na tur woo xam ne képp ku ko yàlla ràngal ràngal na la garaat bu gën a màgg ci garaat yi yàlla nag ci bés yu mel nii daf ci wàcce ay ngëneel yoo xam ne dafay fees diggante asamaan ak suuf ci yiw ba képp ku yàlla ommat ba baaxee la ba nga fekkee yiw yi da war a sant yàlla ndax yàlla wax na ci xadiisu qudsi ne inna lillahi fi ayaami dahrikum la nafaxaat ala fa taaradu laha laalla ahadu minkum yusiibuhu nafxatun minha fala tashqawna baada abada yàlla am na bés ci bésami képp ku gaalul bés yooyu ci ay uppin yoo xam ne yàlla dina ko fay joxe yàlla mën na laa def nga jaare ci am saadatu daarayni muy taxe àddina ak te laa shakka na haadihi leyla leyaa leylun min layaalillah sikki sàkk na guddi gi guddi la ci guddi yàlla yi ba ñu ngi sant yàlla duñ guddal duñ fi wax xam-xam ndax pays xam-xam leen nekk waaye dañoo ñëw di taataan ci xéewal yi nga xam ne ne yàlla dina ko joxe ci gudd gu màgg gu barkeel gii ñëw taataan ci xéewal yooyu di ñaan yàlla yàlla nangul ñu sin guddi nangul ñu suñ jaamu yàlla nangul ñu suñ koor may ñu ñu fekkee ko ay déwén yu bari ci barke yonent bi sallallahu guddi gi nag day guddi goo xam ne liñ ci war a gën di def rek mooy li ci lislaam santaane ndax dañ ko ni ko rasulullahi santaane rek ñu ko ci wax yi mu waxtu yi mu wax ne nañ ko ci dàkk kon ñëpp wër nañu góor góorlu ci dàkk ko ci ci guddi laytul xadr ci ñaan yi nga xam ne mooy jéggulu sa boroom ndax doomu aadama dafa bari ay bàkkaar waaye itam def salaatu ala bi waaye waaye itam di jàng alxuraan ak di jàng xasaay di Sëriñ Tuubaa di ko dundale guddi gi ndax li tax suñu borom may ko jullit yi mooy xam ne xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa gàtt mu baaxee leen guddi gi nag mu remplacer juróom-ñetti fukki yu tegal loolu kon guddi la ko xam ne du guddi puukare du guddi gi tam mbóorante waaye du guddi waxi caaxaan waaye guddi la koo xam ne dañ ko war a dundal ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi te xam ne kat Sëriñ Tuubaa wax na ci Masaaliku Jinaan ne wa lii ashyaai lil amwaati raddun ila dunya mahal xayaati walaw shuyaatan faqad li yamalu saalihatan tanfahum in xafalu nee na mboolem ruu ya nga xam ne nekk nañ ëllëg boo leen leen pëkk-pëkk jug leen ana lu ngeen gën a bëgg ñëpp la ñuy maase ci wax ko mooy dellusiwaat ci àdduna ngir mën a jëfaat jëf ju baax joo xam ne buñ delloo daal leen jëriñ te ëllëg kat Sëriñ Tuubaa waxoon na ne barsaq yaa rekk moo fi xew maw ak ak fuuyu ndax ki bari le xamul kañ la kañ la coobareel buur bi du yow te ku jeexal moom rek moo sos kon nag war nañu góor góorgóorlu ci guddi yi tedd yi xam ne occasion wurus la occasion wurus na kenn du ko jënde ak nen kon da ci ñëpp gën a farlu gën cee góor te xam ne guddi la gu tedd te xam ne Serigne Touba ku fonkoon layatul xadri la ndax bari na ci ay mbiram loo xam ne ci la ko ko suñu boroom jox ba ci jëkk mooy yoonu murit ci la ko Sëriñ Tuubaa njëkk woote rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi loolu bis yoor yoor yoorub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ginnaaw buñ dundilee leetul xadri ca la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam njëkkoon a feeñoo kon Sëriñ Tuubaa ku fonkoon leetul xadri la wirdul ma xuus itam ku ne xam na ne ca gànnaar nga xam ne mooy ceeb bi ubbi yoon wi ci la ko ko suñu borom joxe ca Mauritanie kon Serigne Touba ko fonkoon laytul xadri la kon nag laytul xadri Serigne wax na ne ad dafa wal jalbu ci la ko suñu borom joxe nee na ci la ko suñu borom woomatale kun fayakoon yaqudu lii kun fayakoonu ma urid wala shay'un huni shaytaanu marid na fu ko wax. di sant itam mboolem bokk yi. ndax sëriñ bi day lii soxna may mun a lebaloon bokk yi ci ni mu leen yiire woon ni mu nekk woon seen waajur ci la mu xaj ak seen ba saa su nekk ngay faral di wax ne fii ma toog dama fee toog toogal leen fi waaye seen kër la ren jii day fay nañ ko ko ci anam bu yéeme ndax bokk yi kenn kenn kenn desut ñépp jàpp bis bi jàppee ko seen yëf ba sunu borom dimbalanu ba mu mel nii mu mel muy ci fii ak ci fay gu nekk Touba mosquée te nekkal la fa bokk yooyu nag kii di sëriñ Sidi Abdou Lahad moo ci jiitu moo tax sëñ laat dañ la yóbbante ci moom ndax moom day amuñu fayam foog naa fa mu jaar ak sëriñ bi bi nga xamee ne soxna Bali wàcc na liggéey ak ca la ko jiitu ca biir tawat ja keroog bi ma jógee ndakaaru ñëw yor biteel ne ko day dañoo bëgg nga ñaanal ko dana ma dere Cheikh du ma ñaan dama ñëw ba tiim ko dañoo jekk ak fajar rek ñu wooñu daan lekkat sëriñ Sidi ci hôpital bi mu ànd ñun lépp ba yëf ya jàllee mu taxaw taxawaay bu mat sëkk moo tax sëñ laat boo demee nag ñu ko cantal cant gu am fu mu tàmbali amul fu mu yem di sant nag sëñ bi bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañu seqaloon liggéey bi ndax liggéey bu day di du sama jëmm ji moo ko def ndax mënuma ko ndax benn loxo mënul lu bari àdduna ay équipe ñooy lëkkaloo ñooy booloo bu ñu defee loola xañ na sunu borom mënal dimbali ndax mbooloo muy yërmande ñu tëraloon benn commité scientifique boo xam ne depuis ay weer mi doon xalaat ci thème yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane Serigne Cheikh Gueye mii ci la bokk panel bi ñu fi doon def ci affaire code la famille moom moo ko modérateur bi jiite ko ay borom xam-xam yu bare bari jóge fenn fu nekk ci réew mi ci ay niveau yu kawe dikk fekk fii seen ay nattagoo ci dëkk bi ñu waxtaan ci wax ju am solo. mënuñoo ñàkk tam nag defal mention spéciale yi nga xam ne ñoo di njabootu Serigne Fallilou ndax tey fee sax nit ñu bari xaw nañu faa jaxasoo waaye ni nga xam ne noonu lañu ñu tëyee bis bi dafa yéeme mën naa ne amul kenn koo xamante ne bii ci njabootam nga. koo xam ne bis bii tey danga ko wuute fu mu la fekk dangay ñëw ànd ko ak ñun ndax li sëriñ Bass wax léegi mooy li nekk bis bi ba sëriñ Fàllu ne danga dem ba tëj ay gëléem ci la bal ba takkoon kon li lépp jëfama ak ñaanama moo jur barke bi sëriñ bi ñëw nañu wuy si tey ci bés bi nga yàgg a woote ak ci guddi gu barkeel bi ci guddi yu laylatul xadar ma ànd ci ak gouverneur de la région de Diourbel Mouhamadou Moustapha Ndaw ànd ci ak le directeur de cabinet adjoint du président de la République le professeur Demba Diouf ànd ci ak kilifa yi nekk ci tund bi yëpp mun naa wax tund Bawol te Abdoulaye Peex lim leen léegi ñu am mbegte nag teewal fii président de la République son excellence Macky Sall ci guddi gu màgg gi ñu ciy fàttaliku suñu maam maam soxna Maymuna Mbàkke bintu Cheikhul Xadim di kenn ci njabootu sëriñ Touba di royukaay ci soxna yépp ci jikkoom yu rafet ya ak nangoo jëfe ndigal bi nga xam ne nii moo tax tey guddi gi am guddi gi firnde la ci loolu ndax xam nañ ne soxna si mi ngi koy def ci ndigalu magam ja sëriñ Fàllu Mbàkke waaye aussi ci ndigalu kilifaam gi maam Cheikh Awa Balla Mbàkke te ren ji ñuy célébrer soixante-onzième anniversaire sëriñ bi gëm nañ ne nangu gu suñu boroom nangu ab liggéeyam moo waral tey ñu moo waral tey tey fu ñu tuddee layatul xadr xel yépp dem ci soxna Maymuna Mbàkke moo tax suñu fu président Macky Sall yónnee yabalee suñu xel dina ci dal te dinañ si sawar lool te am nañ yaakaar lool ci ni fii luñ fi ñaan suñu borom dina ko def ci barke guddi gi ak ci barke soxna su tedd soosu kon sëriñ Modou Mahfous président nee na nga ñaanal ko mu mottali yéeneem ci liggéeyal Sénégal te ñaanal yàlla saxal fi jàmm te def fi xéwal ci nawet bi ñu jublu mu nekk nawetu jàmm te jàpp nañ ni soo ko ñaanee dina am ndax soxna si ñu fi dajale kat aw turam di na soo ko doon tekki ci wolof mooy xéwal bisu boroom xéwal nag ci guddi gu barke gi di laylatul xadar gëm nañ ne luñ ci ñaan yàlla def ko. kon nag maa ngi dellu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci barke bis bi lépp loo xam ne moom lañ ci sunu borom di fayee mbaa lépp luñ ci suuf sàkku sunu borom boole ko bokk jullit yëpp boole ko bokk taal bi ah, soxna may am na kàddu gu mu wax bu ma saa def laylatul xadar bu mu jaaxle. daanaka danañ wax ni muy léegi xaj bi ma mujjee fii ci kër gi yàlla def ce suba sa suba teel ak Cheikh Sadio Mbacke xay si jàng fi alxuraan karim woo la mboolem njabootu sëñ Tuubaa fi seewoon jox leen dollu xasaay ne nañ ko jàng ci biir kër gi ca takkusaan ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ñëw fi jullee fi timis doge fi ñaanal bokk tamit ba ñu demee soxna si dafa wax ne wallahi wóor na ma ne liggéey bi may liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu la ndax ba ko nangutoon ki ko fi nekkal du fi xëy si jullee fi ñoom ñoom jaata bi du fi nekk ba jullee fi ñaanal mbooloo kon nag maa ngi dénk taalibe yi ak njaboot ak soxna si nu fas yéene góorgóorlu tey bàyyi xel ndigalul soxna mooy te li mu defoon muy devise am nu fas leen defal suñu devise bopp loolu mooy lan soxna si dafa daan wax ne ñetti yëf yi ñeewu si ko yàlla bind mooy gën koo bëgg sëñ Tuubaa jàpp na ne kenn ko yàlla bind gënoo ko bëgg sëñ Tuubaa gën ko gëm sëñ Tuubaa jàpp ne kenn ko yàlla bind gënoo ko gëm sëñ Tuubaa wax ne gën koo dëggee sëñ Tuubaa jàpp ne ko yàlla bind mënoo ko gën a dëggee sëñ Tuubaa ndax lu mu am biir biti dana ko def ci dëggee sëñ Tuubaa kon lan fas yéene tënku ci loolu te góorgóorlu si bu baax te nu boo desul ko mooy ci diine islam mooy ci sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu xam ne loolu la ñu sëy sëy Tuubaa loolu la ñu digal sëy Tuubaa kat digal na waxtaan bi wax na nu ne man talabal wusuula lil jaliili falya'tasim bi sunnati rasuuli nee na képp koo xam ne da ngaa bëgg a am ci yàlla jox naa leen digal na nga woo ci sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam